de quartier euh, tey dañuy waxtaanee koo xamante ne Gaz Ezedine la tudd Sénégal ñëpp xam ko euh, ngir def lu baax chaque année surtout weeru koor gi rek daf ciy gën a raw euh, du yam Dakar ndax foofu ci plateau dafay joxe ay reer nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy wor ba ngoon du ñu am lu ñu lekk mais day dugg ci biir région bu nekk def programme weeru koor bi fu ne mu dem fa am nu mu fa joxe bu ko defee nit ñi mun koo dundee pendant tout le mois bi mu génnee àdduna yàggul bëri mënoon nañ xalaat peut-être action bi fi lay yem waaye nag du fi yem ndax ay doomam ñoom jël nañ décision ne dañuy suivre li seen papa doon def euh, ba mu sës buñ dee xool reportage bi sax di ngeen gis yi nga xamante ne woon jëndoon na ko bàyyi ko fi ngir weeru koor bi ñu nekk ñu xool ko ñëwaat. bagage yi ngeen di gis lépp dañu ko nar a joxe ba mu jeex waaye nag loolu du lu bees fii ci fondation GAS nga xamante ne fondateur bi di GAS Ezedine dafa dimbali néew di doole yi dundam yépp presque trente ans maintenant que il aidait les gens au tout début il a fait tout seul tout tout seul pendant presque vingt ans il a fait tout seul jusqu'à un moment il s'est rendu compte qu'il avait besoin des gens il a demandé et alhamdoulilah les gens ont commencé C'est ce qui a permis que son œuvre devienne aussi grande. Gas Ezedine génn àdduna bu yàggul waaye nag sénégalais yi ndax doomam yi le fas yéene nañoo continuer œuvre bi mu commencé woon. Il était arrivé à la fin où il faisait presque 1000 plats par jour pour tous les nécessiteux du plateau, sans compter toutes les livraisons qu'il faisait en dehors de les régions de Dakar. des dards, euh, des pouponnières et tout ce qui va avec. Le but, Inch'Allah, ce serait d'aller dans toutes les, les régions du Sénégal, jusqu'à Kédougou, jusqu'à Ziguinchor, que, que, tout le monde puisse nécessiter au moins un peu d'aide de la fondation de mon père, parce que c'est ce qu'il voulait. Inch'Allah, on doit commencer samedi. Et on va commencer par Saint-Louis et Touba, qui sont nos régions les plus loin qu'on a. Puis après, on va continuer même jusqu'à Tivaouane. On va aller à à Gejawai et nous allons faire plein de daras qui sont autour de la Médina parcelle dans Dakar même quoi. Et après ça, il y a aussi nous, nous avons un... étant donné que mon père il faisait 1000 plats par jour pour les nécessiteux et que tout ça c'était compliqué, on va quand même essayer de compenser avec faire des sandwichs pour tous les nécessiteux du plateau mais le week-end ça sera que le week-end le vendredi samedi dimanche. liggéey bi narul yomb waaye li ñu mën a jàpp mooy héritier wom yi am nañu bu baax volonté pérenniser action solidaire bi mu nekkoon di def. voilà donc euh, œuvre yu am solo mu yàgg koo def ba ni mu demee. mu yàgg koo def Pape Cheikh depuis 30 ans maintenant association mu teg ko dem ba nekk fondation euh, demee moyen wu boppam mu jigi ñu bëri gis ko gëm ko di ànd ak moom di koy jàppale muy dugg fu nekk Sénégal gis nga bu mu génnee àdduna façon témoignage bu nekk gis nga ko ku nekk di wax naka la la doon taxawoo naka la la doon dimbalee euh, mu mel ni lu baax kese moom moo am solo donc mu nekk nit boo xam ne dañ ko woneeleek Sénégalais yi tey ngir ñu mën cee am Euh, exemple boo xam ne dinañ ko mën a suivre euh, dara boo koy def gëm ko di ci dem nit ñi dañ la ciy fekk surtout mu nekk loo xamante ne euh, lu baax la ay doomam nag fas yéene garder tenir flambeau bi ndax ñoom nee nañ seen volonté wu papa du ñu bàyyi mukk muy naax saay dinañ gën a continuer action yi même si bu fekkente ne c'est très difficile ndax nga ñàkk sa waajur yaa un mois après koor gi ñëw te ci la doon gën a def ay action il faut nga dëgër euh, fàtte ni moom jóge na fi euh, gën a poursuivre li nga xamante ne moom la doon def biir Sénégal yëpp euh, continuer tamit nar a joxe ndogu yi nga xam ne daf ko doon joxe foofu ci plateau ci nit yi seen loxo jotul seen ginnaaw donc ñun daal benn train buy arrivé à l'heure la boo xamante ne dañ ko bëggoon a wane leeg Sénégalais muy gaz Ezedine voilà bu leen fàtte itam suñu ndimbal yi ci téléphone yi 88 628 20 20 ay enveloppe yoo xamante ni mën na leen a jëriñ oui il faut faire du du jàppal ma jàpp solidarité dafa am solo surtout que weer bi euh, borom xam-xam yi jàngal nañ ñu ni euh, ku ci def lu baax suñu borom euh, fay la ko donc ñu nit yool boobu dañ cee bëgg moo tax ku bëgg ñu jox ko sukkaru kooram mën naa woote léegi nii ay sukkaru koor yu mag yu yu duun voilà du sukkaru kooru 5000 <laughs> ñoom fàtteeg xale yi yenn saa yi ñu mille mille ma ñii 2000 yooyu yëpp baax na mais daal bi ya gënati 300000 sukkaru koor y a rien de nekk ci ligne bi ñu jël ko jox ko sukkaru kooram comme sama yaay ji dugg léegi euh, moom am na 300000 euh, amaat na yeneen i enveloppe yi fi nekk yi 500000 bis bu jot million euh, grâce ak seen opérateur de téléphonie mobile bi di Free mi ñu àndal Free nag mu ngi leen di ñaanal weeru koor bu neex surtout yéen ñi àndandoo ak ñun ci quartier général li gën a neex nag mooy bu dee da ngeen nekk abonné Free ba am seen kalpe Free Money immédiatement dañu di yónnee xaalis bi ci seen i téléphone portable donc 88 88 20 euh, vingt wala 88 628 22 22 88 628 04 cinq li sax suukaru koor la téléphone portable bi iPhone euh, yi mujjee génn la euh, million ak xaaj mayu la ko ñun dañ koy joxe comme suukaru koor